waxtu ba léegi ñu ngi fi teew toog nañu quatre waxtu ñeenti waxtu yoo xam ne xamuñu sax lu tax ma ne fukki ba waxtu ba léegi ñu ngi fi teew ñeenti waxtu xamuñu lu waral débat bi mënul tàmbale ba mu tàmbale senegal yëpp gis nañu xam naa ni kilifa yi toog seen kër dinañu ne lii moo tax ñu bañ politique fi nekk amul loo xam ne waruñu ko mun a régler ci waxtaan mais dafa mel ni waxtaan amu fi ay xaxaranteeg xuloog sax euh, xeex am nañ fi sax ay jota xeex lu fi nekk c'est très simple naam loi bi moom moo ni bu conseil constitutionnel préparé résultat définitif rek mandat bi door na waaye mandat bi door na teewul barki démb bu président Macky euh, Niass woote woon réunion ñun mën mii duma fi ñëw keneen ku bokkul ci législature bi di wees lu ñëw maanaam ba tey bii may wax ak yow président Niass moom moo nekk président de l' nationale am déet ba si suba bu ñu nee woon président de l' assemblée nationale bu amoon empêchement président de la république mu waratu wootu Niass la ñuy woowi en attendant ñuy xool nag vide juridique boobu nañ koy régler donc le mandat n'a pas encore pris il commence aujourd'hui c'est ça la réalité kii est président de l'Assemblée nationale du Sénégal à l'instant où on parle. Hier, est-ce que Moustapha Niass pouvait convoquer une réunion à l'Assemblée nationale waaw ma a démb ndax Moustapha Niass noon na woote réunion Assemblée nationale ndax sax teewu fi woon bu fekkante ni ñaari cumul mandat nag amul ñaari Assemblée nationale yu teewoon teewandoo mënul am donc Assemblée nationale bi day lay tàmbale loolu lu xel ma ne nangu la ndax mun nañ ko waxtaanee nangu ko rek xool nañuy régler problème boobu bulletin faw woote am bu fekkee ni ëpp nañu ñett ba ñeent mais faw ñu trouver loo xam ne mënul nekk bleu ak blanc kese yam fa am déet ma ne bu fekkente ni dafa am plus de ñetti candidat wala ñeent faw ñu wut lu ëpp bleu ak blanc kese parce que loolu rek mu yamul pour lim pour pour woote àttee ñeenti nit ce qui il est impossible ñu bañ a trouver solution jàpp jàpp naa nag lu waral problème bi mooy ñi nekk ci nguur gi gérer assemblée nationale mos ñu xalaat ne dañu war a toog di waxtaanee. moo tax waroon nañu def suspension de séance bu yàgg waroon nañu toog def def suspension de séance bu yàgg defuñu ko jéemuñu ko sax coow li gi gën a gudd rek ñeneen tamit jàpp naa ni war nañu mun a xam ne que alakul al il faut ñu wote. te pour ñu woote il faut comme comme ñoom ci seen wàllu bopp ñëw nañu ak ñetti candidat <laughs> faw ñu am au mooy ñetti tur léegi nañ waxtaan ci naka lañ demee mais jarul xuuloo xeex li ma jaaxal tiital ma mooy am nañ ci sax ñu bëgg nekk candidat jàpp alalu assemblée nationale saccagé ko muy wone nag liñ doon ragal ñun te yàgg ko wax man ku ma xam-xam ne man dama yàgg wax li ma li ma gëm liñ doon ragal di ko yàgg wax ba moytul ma tey jikko laago la publiquement sénégalais bi di la seetaan nga këf micro asan d'accord oo d'accord wax am nga droit bañ a wax wax jox nañ la kàddu nga wax ba mu neex la mais amoo droit saccager ñu assemblée nationale moom mais nag sénégalais yi surtout xale yi may waxal dañuy jàpp loolu affaire u la ak guerrier laa ak loolu ça installe dans la république climat qui ne pas propice bu baaxul pour taxawal réew tabax dara maa ngi leen di gërëm di leen sax